chers internautes dañuy continuer li nga xamante ni mooy fête bi ba tey gis ngeen li fi jotoon a jaar première partie bi ah, deuxième partie bi ñu ngi ci mujjantalu partie bi muy troisième partie bi di ci ànd ak suñu naanaan bii Diaw Diop nuyu nañu la. maa ngi lay fay. Mm-hmm. di kontaan trop ci teew fi tey di nuyu internautes yi nga xamante ni tey ñoo ñuy seetaan. macha allah Sunugal 24 dañuy ñëw amal ak waxtaan rek bu gàtt Diaw euh, Diop kenn dootu la présenté fii ci Sénégal waaye dañ lay laaj rek euh, kan mooy Diaw Diop euh, pour bu gàtt waaw Diaw Diop de mon vrai mhm. ñu may woowee Diaw Diop Didi. je suis un musicien mhm. auteur compositeur. Mhm. lead vocal de Sen Melody Band. entrepreneur businessman. d'accord ñu gis que ni euh, comme li sànq rek mais nga représenté wu rek euh, pour seen ñi la xamul woon xamaat la amaana sax xam naa ñi la xam ñëpp bari na euh, tey jii ñu gis que ni boo waayee ñëpp di ko ñëpp di ñëpp di ko bëggee. tey bu doon laajte secret Diaw Diop la. waa bon c'est un immense plaisir hein, je pense que tey nit yi ak euh, lu manti am mooy en tant que artiste li nga mën mooy essayer. Mm-hmm. di def le meilleur donner le meilleur de toi-même pour que tey nit yi nga mën leen satisfaire mm-hmm. donc c'est toujours un immense plaisir tey bu ñu defee benn produit e que ñu gis ko le public mm-hmm. adapté na ko dañuy gën a kontaan mm-hmm. mais y a pas secret seul le travail paye dañuy gën a continuer def recherche gën a liggéey pour creuser encore et encore pour le plaisir de tous les fans de Didi d'accord Diaw Diop bi mu génnee yaa gën a yàggul mi ngi gis rek def li nga xamante ni mooy ay kañ la album waaw bon euh, chaque chose à son temps. Mm album bi ñu ngi nekk di ko liggéey incha allah bu matee rek moment bi bu jotee incha allah ñi di duñ ko jot. dinañ ko jot donc pour le moment on est en de bosser di gën a tâter terrain bi essayer de bien s'asseoir pour que le public puisse s'adapter par rapport à notre musique avant de présenter un album pour la suite. d' accord ñu gis que ni instant bi euh, seen milieu bi maanaam euh, musique sénégalaise bi instant bi doy na waa ndax mi ngeen soppi ngeen ko sax lu ñu mën a wax arène arène bi parce que coow li yi jàppal euh, ndaka nga jàngatee loolu instant bi fii mbir mi toll. bon je pense que tey musique dafa yaatu ah, ak ku nekk tey ni nga koy dundee. Mhm. ça dépend ku nekk appréciation bi nga xamante ni moom nga am ci ci ci musique bi quoi. Mhm. donc mais bon euh, comme ni la ko gars yi waxee rek ku ci nekk mu ngi def li nga xamante ni yaakaar na ni boo ko defee tey dina jaay. Mhm. donc voilà c'est le business. d'accord mhm. ñu nekk ci li nga xamante ni mooy période bi nga xamante ni tënk na leen tënk na ñëpp sax surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a yëngu ci wàllum musique ah euh, lu toll ni fin d'année euh, benn boîte jour yi nga xamante ni foofu ngeen amalee seen ay ay seen i spectacle. prestation c'est Euh, ñu tëj ko ah gis nañ fi ngeen def benn manifestation ba tey antu dara sottiwut euh, mbir moomu lee naka nga ko gisee. waaw je pense que tey euh, c'est dur pour tous les acteurs culturels. Mm-hmm. et dañuy ñaan yàlla rek année bii nii nii jeex. Mm-hmm. ci jàmm. d'accord bon di profité di ci ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni tey suñu borom yóbbu na leen. Mm-hmm. Euh, di ci ñaanal ñi ci feebar suñu borom yëkkati leen. Mm-hmm. mais comme ni ko wax ça a été parce que pour le mois de décembre tey moo ëpp mois boo xamante ni tey spectacle yi dina bëri. Mm-hmm. et fin d'année les gens ont envie voilà vraiment de sortir et de s'épanouir donc tey bu ñu ñëwee ba ci fin d'année bi avec tous les programmes yi nga xamante ni mm-hmm. moom loo amoon. Covid bi tax tey ñu annulé loolu lépp c'est pas facile mais bon on essaie de s'adapter mm-hmm. comme ni ko président waxee et voilà yàlla baax na. d'accord d'accord nga kenn ñu tëj affaire yi ba mbir jàll. non pas parce que ñenn ci artistes yi ñoom dañoo jàpp que ni affaire yi dafay nuru xeebante dafay nuru kumba am. non man je dirais pas xeebante sax mais je me dis que tey par exemple mënoon nañ gën a penché wu ci question bi essayer de trouver des solutions. Mm-hmm. parce que chaque problème a une solution. et comme le président l'a si bien dit il faut apprendre à, à vivre avec le virus parce que tey virus bi ak ni mu ñëwee implanté wu xamuñu kan lay jeex l'idée n'était pas d'arrêter nos activités mm-hmm. l'idée était de faire de telle sorte que voilà dañuy apprendre à vivre avec le virus de respecter les gestes barrières tout en continuant nos activités parce que nous nous sommes des chefs d'entreprise mm-hmm. tey tey l'artiste tu es devant mais tey dafa am ay nit yu nekk sa ginnaaw donc activité bu taxawee dafay impacter ñi ci ñu bari mm-hmm. c'est pas facile On a vécu une année vraiment difficile. Économiquement, ça nous a beaucoup secoué. Mais bon, yàlla baax na espérons que ni autorités yi dinañ ci trouver benn solution pour ñu permettre Euh, de continuer voilà. d'accord ñu gis que ni xale yi jigéen ñi dañu la sopp bu baax. en mhm. tout temps dañuy nekk jaw job c'est parce que feeling bi caaj bi façon de parler ak ah, góor ñi ci bëri di ko ŋaañi parfois nga gis ni euh, góor dafay dëgër wala ci dafa bëri tiital ak euh, polémique boobu yëpp nan naka nga koy dundee. waaw tey xam nga c'est normal ah. parce que nit ku ci nekk tey boo taxawee ku ci nekk compréhension bi muy am. ak ni lay appréhender. Mm. tu vois donc tey euh, l' essentiel mooy essayer de rester naturel. d'accord. et d'être toi-même. donc voilà man quand je chante je me fais plaisir d' abord. Mm-hmm. avant de faire plaisir ñi nga xamante ne ñoo may déglu parce que feeling la c' est ma passion. Mm-hmm. donc le reste moom voilà je pense que tey yàlla moo ñu sàkk. Mm-hmm. te yàlla mi ñu sàkk tey boo ko neexoon ku ko gëmul mu ray la. donc am na ñu ko gëmul teewul mu ngi continuer di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan. boo ko tegee ci angle boobu rek doo sonn. tu peux pas faire plaisir à tout le monde. lépp naturel la ñor di woo ci dara. <laughs> yi ñi ma xam xam nañ ko donc bon pour man on n'a pas besoin de se justifier l'essentiel mooy d'être quitte avec sa conscience et d'être soi-même le reste bon tu laisses les gens. apprécié mën nga ñu dikkalaat ci sa relation ak yeneen ci yi parce que gis nañu nga def ak ki nga xamante ne mooy duo ak euh, OMG ak ñeneen ak ñeneen yenn relation nga am ak ak yi nga xamante ne mooy artistes waaw je pense que relation yu naturelle la relation entre frère et sœur relation entre ay suñu papa yu fi nekk et tout comme j'ai l'habitude de le dire Sénégal yaatuwul donc tey ñun artistes yëpp li des d'essayer de collaborer mm-hmm. pour que tey ñu mën a yóbbu musique sénégalaise au de nos frontières parce gëj nañ fi am ay yenn euh, raay yi hmm. pour loo xamante ni musique sénégalaise da koy gagné boo xoolee tey euh, prix yi fi am yooyu yëpp gëj na ñëw Sénégal donc pour man l'idée c'est d'essayer de telle sorte que dinañ collaborer pour pouvoir exporter notre musique et faire valoir notre culture au-delà de nos frontières comme ni ma ko waxee sànq rek 2020 dañ leen tënk bu baax ñu jëm ci at mu bees ni 2021 yan projet wala lan nga ñu naral ci 2021 bi ñu jëm d' abord ci 2021 bi dañuy ñaan d' abord yàlla buur bi. Mm-hmm. moom mi nga xamante ni tey directeur wu ko. Mm-hmm. mu jàppale ñu dimbali ñu def ci ndox bu sedd. bu 2021 gën 2020. ñu génn ci 2020 ci jàmm. Mm-hmm. et que yàlla yërëm jaam ñi. ñu gën a góorlu après nag le reste mooy ku ci nekk. Euh, sa projet annulé yi nga xamante ni moom ngay teg suñu borom may ñu fekk ak tal. ba ñu yeggale ko et que voilà. 2021 bi yàlla may baax. amin amin amin jot na nag amin jot na jot na kay amin jot na. <laughs> voilà jërëjëf xam naa dañuy tàggatoo rek euh, ba beneen yoon allah. kontaan naa trop mais tàggatoo te mayoo ñu dara may ñu dara ba. waaw d'abord dama lay remercier. merci beaucoup plaisir la woon pour man ma ñëw fi tey. merci euh, di profito di souhaiter bonne heureuse année. merci beaucoup internautes yi ñuy saykaan à travers Sunugal 24. di leen mm. wax ni aussi ñu ngi def liggéey bu am solo. Mm. donc big up. voilà yal na jàmm yàgg. et at bii di ñëw nekk at lépp lu ñu naqari woon ci 2020 rek suñu borom def 2021 mu nekk atu naataange ba lépp lu metti woon nit rek mu fàtte ko. amiin amiin euh, voilà xam naa dañ koy jeexalee fii rek. ba beneen yoon incha allah euh, fête bi euh, ñu koy fêtewaat euh, ay ati ati at 2021 bi ñu jëm nekk atum jàmm atum xaalis ñëpp gis ci seen bopp célibataire yu amul jëkkër yàlla may leen jëkkër ñu amul jabar yàlla may leen jabar nekk ñëpp nekk ci jàmm li ñu leen indi loon ci Sunugal 24 dañ leen di jox dig de jabe beneen yoon incha allah merci. xam nga sañ si fi te koy def bëri feeling ci la bokk. dafa yokk bay re du mën noonte du ci dóore waa tamit tamit waa tamit tamit tamit tamit waa tamit tamit ma ni waay yow daal yow daal macha xool leen ma ni ma mel xoolal ni nga sañse gis nga fi nga génn yow daal yow daal macha sama seetu na sama selfie baax na lu dul sañse bëgguma te fi ma génn nooy na bi ci kaw moo ngi tas yaakaaru bi ci suuf couleur yi dañ koy harmoniser ba mu kuul su ma leen wayelee su ma leen wayelee xam nga ni su ma leen wayelee su ma leen wayelee ngeen xam ni ndaanaan lay jiin ndaanaan lay jiin waa sunu gal 24 lay jiin yéen rek man lay jiin kaay ma wayati Sunugal 24 ma ni xew nañ ma ni lépp lu ngay wër fii lay xewe Sunugal 24 tangoog ñun ñoo ko moom ma ni àllen wëy naa la di déngi kon kaay ma wëyati la ba tax na déggal waay sama xol ku lamb yaa tey Sunugal 24 xam nga da koy yëngal param